am mbégte ak kontante bi dalal euh, waaw salaam ñu ngi am mbégte tamit di leen euh, wuyu euh, waxtaan ak denc ci rédaction GMD. waaw suñu tànk li ko waral mooy feddaliwaat waxaat beesalaat combat ba nga xam ne dafa diggante woon depuis 2006 muy. 81 ans le jeune Grand commencé à parce que nous avons un ancienne actuel emplacement au terrain euh, école Morphal école Grand 2 fi mu communément appelé école marché pour la jën yi di exercice de football di fa def sportives. activité sportive bi communauté bi soxla espace pour construire construction école ñu approché des jeunes ñaan pour ñu transférer terrain ci lañ leen jël euh, Kayedas ak euh, CM Grand Yoff ci ginnaaw mission baptiste donc depuis 81 jën yi fa lañu nekkoon di ko utiliser ba en 82 ci lañ soog a euh, ñu xamal ne état bi daf ko joxe woon par bo à la communauté Maure pour besoin de construction benn centre culturel Maure en 81. ok. waaw mmh. mais yéen est-ce que association sportive am ngeen benn papier bu mu wane. ñoo ko moom mais defe naa depuis quatre-vingt-un euh, communauté entière bu ñu amee benn espace ba nga xam ne ñoom ñoo koy utiliser euh, pour des besoins sportifs ak des besoins euh, yi nga xamante ne école yi dañ koy soxla pour éducation physique ak yeneen. defe naa depuis quatre-vingt-un boobu defe naa dara amul woon ci espace bi jeunes yi di ko utiliser mu nekk benn espace de loisir espace d'épanouissement espace contact entre jeunes yi ak xale yi. def naa depuis quatre vingt ans ba léegi bu ñu ñëwee ba espace boobu pour ñu continuer seen activité yooyu. waaw am na ay jamono si ginnaaw période campagne électoral locale ni candidat bu woon. mairie de Dakar mairie de Kayo ni mu tuddee. defoon na ay démarches. ngir ngeen moom terre ba pare fu mu fu mu. waaw démarche yooyu ci ci benn lancé la tàmbali parce que bi ñuy tàmbalee jóg pour xeex Euh, dañu initié woon benn pétition bu def mille 3210 voix prêtre bi euh, ñi nekk foofu ñëpp dem nañ expliquer leen li ñu yëkkati euh, wax leen ko ñu ànd ceeg ñun signé ñu pétition boobu ñu déposé ko ci autorité compétente yi defe naa bi ñu ko déposé après ki la ñu dem nag benn processus di rencontrer autorité fa nekk maire bi fa jógee di Mamadou Mor Mbaye pour expliquer leen suñu inquiétude par rapport ak espace boobu parce que au delà de espace boobu am Euh, Grand Yoff ñëpp xam nañ ne depuis les années 80 CM bu gënoon baax ci CM yi nekk Dakar la loolu moom résultat scolaire yi ku def gëstu mën nga ci xam dara lu leer euh, de 81 depuis 81 boo léegi ba léegi Grand Yoff amul lycée ñu remarqué bu ñu jàngee tuuti par ay problème moyen transport ak yooyu day tax élèves yi ñu ci bëri ñu bàyyi seen jàng mujj toog duñ def dara léegi ñun on s'était dit que pourquoi pas ñu jéem a approché yi xamal leen ni ñun Grand Yoff dañu mérité pour ñu am lycée parce que ay parcelles ak yeneen dëkk yëpp ñu màgg suñu judd suñu ginnaaw wut leen espace ma tabaxal leen lycée ci lancé boobu ñu ne kon ñun pourquoi pas ñu saisir autorités yi fa nekkoon bi ngay wax noonu ñooy mimi ak ñooñu expliquer leen projet bu bëgg réellement ci terrain bi moom problème espace bi ñun mën ko résoudre mooy CM bi en ci boppam am na terrain foot bu ndaw dañ leen wax nañ jël terrain ay terrain basket ak terrain handball ak yeneen yi nga xamante ne élèves bu CM yi bu ñu ko transformé en lycée dañ mën a utiliser maanaam terrain football pour def seen activité sportive ci lancé boobu lañ rencontré woon Mimi Touré expliqué ko euh, moom mu mu dox ci ay euh, ba expropriation bi euh, question de jour là. après elle nous avait même conseillé à ce que ñu bind ben demande d'attribution ba nga xamante après expropriation dañ koy attribuer jeune grand fi ci lancé bobu lañ bind demande bobu jox ko ko rencontrer ko mën nañu demander ni ci table président de la république te sous peu yi xamatuñ fu affaire yi tollu xamatuñ lan mo ci top. te malheureusement pour collectif bi lay wax sax après chute Mimi bien que ci biir campagne dañu waxoon ne kayit bi jox nañ ko waa Grand Yoff mais après chute am ba léegi déggatuñu dara te kayit bi foofu la yam xamatuñu fu mu toll ak lan la moo ci toll bàyyiwuñu seulement jëloon nañ par rapport ak autorités yi parce campagne la woon ñu fi bokk ñëpp dañu bokk ci ay ay obédience yu bokkul mais à chaque fois ñu ngi doon garder contact ak euh, maire Grand Yoff di garder contact ak député Ablaye njaay ba nga xam ne moom il était de nous ci action yi ñu doon def kon donc ñaari autorités yi lañu amoon ñu gën a jege ku mel ne Abdoulaye Ndiaye di ko expliquer problème bi fu mu toll mu ñuy wax nañu xaar président bi dafa voyagé bu ñëwee dina ko signé question de temps la mais mosuñu bàyyi ñu leen doon topp di leen expliquer problème bi. comme dafa yàgg parce que su ma lay wax noonu bu ñu xoolee kayit yi en 2010 bi problème naar yi ñëwee à la rescousse parce que ñoom comme au début dañu initié woon ne dañu koy def centre demande benn changement d' pour euh, ñu defal leen ko ñu pour ñu mën fa commercial sous préfet bi bañoon parce que instant boobu net bi muy demandé loolu dafa fekkoon euh, terrain bi ñun jeune grand ñu jóg xool autorités yi ñu mën a jàppale ci lañ rencontré Khalifa expliqué ko moom tamit mu jël initiative bu boppam jàppale jeune grand pour ñu clôturer terrain bi terrain ko bi ñu yeggee ba phase terminale bi ci la jot euh, sous préfet jot su la joxee interdiction pour ñu arrêter construction

parce que récemment ci lu yàggul euh, dañu interpellé ne ñu dafa am benn euh, waa ju fay ñëw constamment di jël ay mesures di ñëw ak ay géomètre di natt ak loolu. teree bi ñoom ñoo fay jaar constamment di xam bi ñu ñëwee ñu ànd ak waa ji interpellé ko sur le pourquoi moom mooy ñëw ci terrain boobu ak lan dafay fay wut. waa ji mu leen dañ ko jaay terrain bi dafa àndoon ak famille am mi ngi ànd ak soxnaam ak doomam pour ñëw vérifier terrain bi ñu ko jaay bi ñu demee ñu gis waa ji ñu indi ko ci man bi mu ñëwee on s'est parlé ma expliqué ko réellement historique bi fii ñu jaar. ba fi ñu yegg si mu ne moom tan fi ay litiges yu bëri jaar nañ fi ba en 2012 la waa ji wax ni si la ko jaay man je t'aurais conseillé que comme lii affaire askan la te ñëpp a ko bokk te pour monde askan bi du ñu bàyyi terrain bi keneen di ko bénéficier wu parce que ci même lancé boobu la ñuy perte zone de captage bi yëpp amatul benn espace moo des benn espace moom moo des pour jeune grand yi je t'aurais conseillé si waa ji approché ko pour mu jox la sa say say sa tax yu bees yooyu ñu fa tabax oui il est parti il est allé même jusqu'à nous proposer pour nous dire a xool nan lañ négocier entre ñun ma ne ko lii du ñuy négocier parce que nous sommes. par la suite ci la dem mu euh, gendarmerie d'après moom li m'a wax mu sommee waa à pour nous rembourser ko xaalis bi gendarme bi ne non, noonu bu fekkente ne waa ji pour justifier quelques jours après une semaine après ci a dit ji ñëw mu indil ñu benn këyit buy un certain Momar comme nous l'avons dit, waxee euh, Momar Seck moom moom te service su domaine on a nañ ne bail boobu moom nañ ko attribué en 2012 mais li bizarre ci wax ji yëpp moom mooy bail bi période bi ñu koy attribué Momar Seck boobu terrain bi mi ngi amoon interdiction de construire terrain bi euh, baye bobu boobu jour bi koy affecté éventuel trouble yé mën am bu fekkente ne manam ñom jël nañ terrain bi diko joxé baye donc de 86 ba ba ñuy yegg en 2012 litige bi nek fofu ñun peuple Grand Yoff xamuñu nan lañ mën comprendre état bi di continuer di joxewaat ay bay ci même espace boobu nga xamné dafa créer ay litiges yu bari en 2012 buñu xolé juste cinq jours après surtout régime wad, bail bi mu indil bu ci nek parce que bu fekké depuis 2010 yéen ngi xeex ben affaire nga ñëw ba en 2012 ben régime bi fi nekkoon daanu régime bu bees bi ñëw nek gul sur place ngay attribuer ay bay ci ay particulier ñu soupçonné na kon amna li ci nek waa ji bi ñu ko interpellé noonu jour bi ñu fi ñëwee après le gars en person quelques semaines après mu ñëw foofu ma appelé encore bi ma ñëwee ma ne ko terrain bi euh, da nga ko jënd wala nan nga def ba am ko moom il m'a expliqué que ne terrain bi dañ ko ko jox bàyyi mais comme dañ ko ko jox bàyyi moom moo ko moom ma ne ko mais yow dañ la ko jox bàyyi ñii la ko jox bàyyi est-ce que wax nañ la réellement li ci nekk parce que ki ñu ko jaay neen dafa bëgg tabax te yow xam nga ne espace bi dafa am interdiction de kon yow xamoo sax li nekk ci terrain bi mais bi muy wax problème après heureusement euh, yeneen grand yi fa doon jaar ma woo leen ñu jàpp ko expliqué ko dugal ko ci otom ne ko na dem léegi nag ci inquiétude boobu ñun la ñuy dund parce que ñun au début li ñu bëggoon moom mooy ñu régler ko ci jàmm ak ci salaam ba la nga xamante ne dafa revenir de droit population grand Yoff ci ñu delloo leen ko mais bu continuer di def lii ñun duñ fa nekk chaque jour parce que pour képp ka nga xam da fay ñëw bëgg a utiliser terrain wala nga jël donc euh, merci. waaw ah, merci.